ñu dellu siwaat ak yéen euh, ci plateau sunu kaay yi fii ci sunu Label TV ci xolu Sénégal ci xolu Sénégal yi ma leen di jaajëfal bu baax a baax ci bësu tey bi muy euh, mardi ni koy wax de ci olof. mardi waaw altine après. talaata. talaata loolu la <laughs> kon nag ci talaata ñaar fukki fan nag ñett ci mois d'août euh, ñu amaat mbégte comme ni ko Ourey di waxee ak contentement jàkkaarloo waat ak yéen suñu téléspectateurs yi pour tey waxtaanee li nga xamante ne mooy toujours ndono comme ni ñu leen waxee woon euh, thème de la semaine lañ koy def démb ñu doon dalal ki nga xamante ne moom mooy euh, Mame Cheikh Diop bu ñëwoon expliqué fii li nga xamante ne moo nekkoon naqaru xolam ci ndono bi nga xamante ne léegi mënaguñu miiras euh, kii di papam ñu koy ñaanal en tout cas fi mu ne gënal ko fi mu jógee te euh, yàlla yërëm ko te accueillir ko ci àjjana yi gën a kawe yi tey ñuy dalal ki nga xamante ne moom mooy euh, maître Diakhaté Mori Diakhaté dinañ ko bàyyi après moom mu présenté boppam di jëlu mm-hmm. la ñuy ganale gan bi wala da ngay jël kàddu yi ñu ganale gan bi <laughs> kon baax na maître Mori ñu bàyyi la nga nuyoon teg téléspectateurs yi ñuy seetaan mm, mm. asalaamaaleykum euh, mbokk téléspectateurs yi euh, yéen ñu duñ seetaan salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen ñu dalal tey donc man maa ngi tudd Mori Diakhaté di notaire donc euh, nekk secretaire général chambre de notaire donc tey am mbégte teew fii pour waxtaane li nga xam ne moo dem ci wàllum ndono ak lan moo ci euh, liggéeyu notaire euh, ci wàllu boobu noonu parce que xam naa ne ñu bëri euh, bëgg nañu xam rôle notaire boobu naka la ci doxalee pour que ndono mën a mën a sotti. Mm. Ah, te loolu am na solo parce que benn tem la boo xam ne c'est d'actualité mais également c'est un thème qui social. waaw mm-hmm. ah, donc am na solo loolu waaw di leen jaajëfal ci loolu. jërëjëf euh, ñu muy euh, mosieur maître Mori balaa ñu may dóor parce que ñoom dañuy dañuy bëgg ngeen leen leen maître <laughs> donc maître Mori Jaxate di jëlu ñu bàyyi leen nga nuyu. jaxase tuur yi maître la. maître kon moom moo tax. <laughs> parce que voilà téléspectateur yi ñuy seetaan ak ñi ko yëndi tamit. Mm-hmm. ñu koy seetaan en direct. Mm-hmm. donc waxal maître comme li ñu wax merci beaucoup mm-hmm. suñu téléspectateur yi. Euh, di leen nuyu bu baax a baax di leen ziar mm, comme euh, émission bi ngeen faral di suivre chaque jour. Mm-hmm. du lundi au vendredi suñu kaay yi seen kaay yi fii ci suñu Label TV di leen remercier bu baax a baax gis nañu seen taxawaay waaye ñu leen encouragé bu baax a baax di leen jaajëfal waaw. di jëlu gars yi nee nañ ma laaj la kañ ngay dégg olof. baax baax na li may. <laughs> voilà donc comme ni nga wax li may wax ni ñu koy comprendre. ñu koy comprendre noonu nee nañ dinañ dégluwaat dégluwaat pour mën a comprendre sa wolof parce que daal di jaxase wolof bi loolu laa ci soxla loolu nga ci soxla parce wax rek tax ñu xam ne fan laay waxee. ah non non non foo ñu am kii foo ñu dégluwaat dégluwaat ko. maanaam day cax quoi. day day cax moom a jaaxal kon nag baax na de leen di jéem boog di fiiri cax yi nga xamante ne moom la euh, di jëlu di leen di cax ñu leen di fàttali ne ñu ngi ci canal 27 euh, bu TNT euh, canal 34 bu TV d'Orange te mën ngeen ñu suivre aussi en direct sur Facebook tous les jours lundi ba vendredi 10h ba 11h tey nag actualité bi di jëlu. Mm-hmm. ñun actualité bi ñu am rek doy na muy ndono gi. ndaxte démb li ma recevoir euh, maître Mori euh, comme appel ku nekk mhm. di ma wax situation bi nga xamante ne moom ngay euh, suivre moom ngay mhm. dund. Mhm. surtout bu ñu gisee que tey dama doon dalal notaire beaucoup de questions yoo xamante ne gars yi posé nañ ma ko parce que amuñu solution ne nañ ba léegi mënuñu miiras seen waajur bu génn àddina loolu di problème nag am na sax ñu dem ñoo xamante ne dañ ne peut-être après cas de divorce yi. Euh, mën nañ gis ne au niveau du tribunal cas ndono yi moo ci moo ci ëpp mhm. pourcentage waaw comme li ma waxee sànq euh, mbirum ndono succession dafa nekk benn benn problème social mhm. donc euh, te ñu lu ñuy faral di seetlu mooy ñun sénégalais yi amuñu réflexe bu woy dawlu bi génnee rek mhm. ñu dem seeti ñi nga xam ne ñoo leen di mën a gindi pour ñu xool naka la ñuy traité ci wàllum dona bi loolu mooy benn ñaar yi tamit dañoo cosaanewul ñun di waajal suñu bopp mm-hmm. parce que nit ñi yenn saay bu buñ leen wax waxu dee rek dañ lay móolu donc ñoom pour ñoom waxu dee moom dafa nekk benn tabu boo xam ne nit ñi sawaruñu di ci di ci wax daa mel dañ koo ragal nag waaw dañ ko xaw a ragal mhm. te euh, li am solo mooy nit ki da nga war a waajal sa bopp mhm. parce que boo waajalee sa bopp rek maanaam lu bëri li nga xam ne dafa waroon euh, soxeeku ci wàllum problème ci wàllum xuloo xeex problème d'interprétation yu bëri mhm. mën naa làkkartiku te loolu en fait notaire yi ñu ngi fi. Mhm. donc am na ay mécanismes yu bëri yoo xam ne yoon tëral na ko. et euh, pour pour yombal wàllum ndono la. donc euh, te loolu yaakaar naa nit ñi war nañu mën a gën a ibbeeku. ci wàll boobu ñëw di seet si ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, xarañ ci wàll boobu muy notaire yi mën leen teg ci yoon ba ëllëg buñ fi nekkatulee en tout cas seen gannaaw mën a mën a mën a sedd. <laughs> waaw moo tax ne xam nga loo xamul kañ la. xamoo nan la xamoo fan la. moo tax nga war a waajal sa bopp. Mm-hmm. waaw donc am na ñoo xam ne daanaka dañuy xaar ba maanaam dee di xaw a fëgg mooy maanaam dem ba toll yenn at yoo xam ne daanaka la ngay amatoo kàttan. Mm-hmm. Euh, ngay commencé di xalaat loolu. mais lu jëm ci wàllum ndono da nga ko war a waajal ca teel. Mm-hmm. waaw parce que loo xamee xamoo kañ la xamoo fan la xamoo naka la. Mm-hmm. boo ci teelee waaj rek yaakaar naa même bu àggul sax yu bëri dina mën a sotti. sotti waaw dëgg léegi nag dafay baax parce que gars yi dañuy dégg notaire notaire ñi di dégg aussi yeneen euh, xeetu euh, tur yoo xamante ne yéen a ngi toujours ci li nga xamante ne rek mun nañ ko wax ne ci ci loi ngeen di yëngatu. Mm-hmm. léegi nag ñu bëggoon euh, tey nga mën a te téléspectateurs yi ñuy seetaan lan mooy notaire ak lan mooy rôle waaw euh, notaire moom yaakaar naa ñi nga xam bariwuñu <laughs> damay forel di euh, <laughs> yenn saa yi sax dañuy jaawatle ak yeneen xeetu liggéeykat ñi naan avocat huissier eh. mais ñun suñuy liggéey dafa xaw a particulier mm-hmm. parce que notaire boo koy xool c'est un officier ministériel. Mm-hmm. boo xam ne moom lan mooy lan mooy liggéeyam mooy maanaam day aar. day aar te day anticiper ci ci jafe-jafe mooy maanaam dafa am xeetu. kayit yoo xam mbind yoo xam ne notaire rek ko mën euh, te mbind yooyu noonu buñ ko xasee ba sos ba teg ci signature notaire ak cachet rek ça veut dire que mbind boobu noonu kenn mënu ci dell gannaaw mhm. lu dul inscription faux te inscription faux dafa nekk loo xam ne beneen procédure judiciaire la mhm. donc moom loolu mooy inscription faux mooy maanaam kayit bi ñu ne kayit kayit bi dafa dafa dafa faux valable mooy maanaam dañu falsifier signature yi ah. wala lu ñu lu ñu bind du dëgg wala genre yooyu moom la ñuy wax inscription en faux mooy hmm. maanaam loo xam ne euh, dañ kaa tuumaal daal dañ kaa dañ kaa dañ kaa dañ kaa woyofal ne naa lii nga bind nii amut hmm. waaw parce que nit ku ñëwee tey damay jëm rek ci wàllu noonu comme ci loolu lañu ñu nekk hmm. euh, boo jëlee tey exemple pour mu gën a terre à terre rek procure nu ñu tudd euh, testament am na boo xam ne moom la ñuy wax testament authentique boo xam ne notaire bi moom moo am sañ-sañ recevoir act boobu mooy acte authentique boobu noonu mooy acte bi day am benn ndëgër laay boo xam ne nit amul sañ-sañ weddi ko wala mu si delluwaat ginnaaw donc testament boobu noonu euh, bu ki nga xam ne moo ko sàkku mooy sàkkuteef bi bu ñëwee ci notaire bi ne dama bëgg sama testament mhm. notaire bi dina ko laaj dina ko laaj yu bëri bindal ko ne ko man su ma bëggee su euh, ma fi nekkatulee nii laa bëggee sama ginnaaw ñu doxalee ko notaire bi da koy bind donc kayit googu noonu buñ ko xasee ba sos ba bind ko ba tënk ko notaire bi signé ko su boobaa kayit boobu noonu kenn amul sañ-sañ ne lii notaire bi bind amut wala sa ki nga xam ne way dawli bi jotu ko woon bind mm-hmm. donc dalay aar donc loolu mooy notaire donc c'est une profession boo xam ne euh, ministre moo ñu na euh, président moo ñu nommé par décret. et bu ñu nommé en ah, fait notaire yi vous êtes par décret nommé par le président par décret. d'accord waaw loolu tam dafa jar xam. ah ok parce que man ma yaakaaroon ne <coughs> da ngeen di jàng. am seen ay diplôme. vous avez des examens à faire comme master wala doctorat wala yooyu après nga ñëw nekk doon notaire ubbi sa cabinet. déedéet amul liberté d'installation. d'accord waaw amul liberté d'installation donc euh, soo xasee ba am maîtrise ñun ba ñuy jàng léegi yaakaar naa master bi lañ lay laaj. Mhm. dafa am concours booy def. Mhm. boo matalee concours bi nga dugg dinga am stage. stage boobu di nga ko def juróomi at. juróomi at yooyu bu demee ba mat su boobaa nag dina am lu ñuy def woon benn examen d'aptitude pour xam ne ndëgam li nga jotoon a jàng mokk na. waaw mm-hmm. donc soo mokkalee nag en ce moment nag état bi mooy créer ay postes. Mm-hmm. moom lañu wax charge. Mm-hmm. charge yooyu noonu nag après état bi moo koy. mooy nommé ay nit ay charge par voie de décret comme ça yow nga mën a na sant commencé liggéey donc le notaire amul liberté d'installation moo tax ma ne la sànq c'est un officier ministériel boo xam ne mhm. état bi daf ñu dénk li nga xam ne mooy emblème mu état bi mooy baobab bi moo tax boo xoolee kayitu notaire toujours di nga ci gis soo bi soo bi baobab moo ci nekk te baobab boobu mooy emblème mu état bi mhm. donc loolu mooy wër ne notaire bu xasee ba kayit kayit boobu kayitu notaire bi mhm. kayitu état la waaw loolu tam lu jar xam la du kayitu notaire bi kayitu état la parce que notaire boobu noonu état la fi nekkal état ka fi sanc donc bu xasee ba signé ba teg ci soo boobu noonu rek ça veut dire que kayit boobu moomatuñu ko kayitu état la moo waral boo ko naree contesté inscription foo lay nekk parce que boo ne li dafa mel ni état bi nga gàntal d'accord loolu lu jara xam na xam naa ne muy man ak yenn téléspectateurs yi ñuy seetaat ñu ci bëri xamuñu ko woon si léegi nag euh, je peux euh, di jëlu bu dee da am question wala ma xuus ci question yi rek ma xuusaat mhm. d'accord léegi euh, ñu bëggoon xam ci yan kaa la ay héritier maanaam ñi war a doon war a jóg ne ñun dañuy dem seeti notaire waaw déjà bu way dawlu nit ki génnee àdduna rek ci yoon nit ñi war nañ commencé jóg jege notaire mm-hmm. euh, parce que nu mu gën a teelee mu gën a baax mm-hmm. parce que lu tax parce que yoon dafa tëral ne nit ki fekkee dafa génne àdduna mm-hmm. euh, pour ñu régler wàllu ndonoom ci duróom diiru juróom benn weer la six mois war nañu ibbi succession bi donc ci loolu naka lay commencer bu ngeen ñëwee ba gis notaire notaire dina leen teg ci yoon parce que booy xool avant boo demee ci législation française même fii nii sax code de la famille prévoir na ko mooy bu xasee ba nit ki génn àdduna rek dañuy ñëw ci notaire bi notaire bi am na sañ-sañu def lu ñuy wax acte de notoriété après décès notoriété après décès boobu mooy lan mooy dañuy xool ki nga xam ne mooy waayu dawli bi ñan la fi bàyyi pour ñu donn ko parce que loolu mooy première question à régler. léegi bàyyi na testament wala bàyyiwul testament. waaw loolu mën nañ ko laaj. parce que bu ñu ñëwee dinañu xool déjà ñun dinañu bind notaire yëpp. Mm. laaj leen ndegam diw génn na mm. ñu ne ah diw génn na de mais est-ce que amul fenn foo xam ne bàyyi na fa testament. Mm. ñu yónnee ko ci cabinet yëpp. donc loolu mooy première phase bi bu amul testament ñu xamal ne ñi amul testament su boobaa nag maintenant dañu jublu ci ndonali ni ko xam ne noonu la ko yoon tëralee. Mhm. fekkee soit dangay dugg ci euh, succession musulmane. Mhm. wala da ngay dugg ci succession de droit commun. cest à am ngeen droit euh, yoon may na leen ngeen def succession musulmane wala da nga leen di yebal ci euh, maanaam imam yi nga xamante ne moom seen xel màcc na ci bi du notaire moo koy décidé. du imam bi moo koy décidé. d'accord waaw ci li nga xam ne moom la yoon tëral muy cote de la famille parce que ci ñun loolu la ñu sukkandiku. Mhm. dañ ne succession droit musulmane bi. Mhm. soit nit moo koy sàkku. ne man de bëgg naa su ma génnee àdduna. Mhm. ñu sama ndono ñu toppatoo ko ci ni nga xam ne noonu la ko diine islam tërale waaw mais nag dañuy jàpp toujours ñu ne bu dee nit ki dafa génn ci àdduna ci diina islaam dañu jàpp ne kooku ci diina islam la ñu war a régler ndonoom wala bu ko waxul yi tamit dañu xool ni comportement wam mhm. ñu ne ah kii daa war na julli daa war na woor daa war na mooy maanaam li nga xam ne loolu la ponk islaam laaj mhm. daa war na dundee li nga xam ne mooy jikkooy jullit mhm. ñu ne kon kii dañ ko war a traité succession suivant la succession la succession droit droit musulman donc su boobaa euh, ñun notaire dañu tënk ci loolu donc parce que loo xam ne la ñoom ñi nga xam ne sax du héritier sax ñoo koy décider way dawli bi la en fonction léegi acte de notoriété boobu moo doon wax notaire bi mën na ko def ci wàllu boobu waaye comme ñun Sénégal parfois dañu am lu ñuy wax une famille élargie mm-hmm. ça macha allah nga gis xam ne dina am fukki doom wala fukk ak juróomi doom ça dépend. <laughs> waaw loolu lu ko ëpp sax. Mm-hmm. xam nga loolu nag notaire bi su boobaa day xaw a am benn genre réticence parce que tey mën nga bind sa acte de notoriété. ah nit jékki-jékki tëlee fee ne man da ngeen maa fàtte. ne ci doom yi la bokk man ci doom yi la bokk wala kii ne man ci jabar yi la bokk. Hmm. waaw parce que loolu gis nañ ko fi koo xam ne ñii takk takk suuf yi. ñii dañoo takk suuf ñii hmm. amaana dañoo dañoo sëyoon. Hmm. divorcé mais divorce bi prononcé wuñ ko tribunal. tribunal d'accord parce que droit sénégalais loolu tam te loolu bëri na fi trop. dañuy fàtte Euh, divorce tribunal moo koy prononcé parce que la répudiation mooy maanaam xëy rek na sa jabar génnal kër gi. Mhm. waaw comme ni ko ñu bëri di defee. Mhm. loolu yoonu Sénégal nanguwu ko. donc donc ce qui fait que bu ñu demee ba ne dañuy divorcé da ngay dem tribunal tribunal prononcé divorce bi te loolu nag yenn saa day bëri coow parce que di nga gis koo xam ne xëy na peut jëkkër ji moom naa neexoowuñu ku nekk toog sa ruku ñu jékki jëkkër jëkkër ji euh, jabar jëkkër ji làkku ah jabar ne man ba léegi wàccuñu ma waaw man ba léegi ci soxna yi laa bokk donc moom day naan dafay tënj parce que man amul jugement de divorce boo xam ne dañ ko prononcé donc loolu yëpp ay coow yoo xam ne ëllëg mën na mën na mën na ñëw taxaw ci sa boor parce que tout simplement réglé wuñ ko woon au préalable. kon kon si je comprends bien ku divorcé eggul ci tribunal kooku bokk si ndono wala. daf ci war a bokk ci war a bokk waaw. mais day jur coow même si même si euh, divorce bi euh, tribunal yi xamuñu ko eggul ci tribunal exe. moom la la wax nee na la soo divorcé maanaam yow comme ni nga yow moom sañ nga lu maanaam tey nekk ak sa jabar <laughs> jékki-jékki ne ko génnal kër gi fase naa la ah. mu génn kër gi d'accord te demu leen tribunal waaw ñu ñu acte ne ah yow digganteeg sa jabar jeex na voilà ñu ne jabar jooju tey di yow boo génnee àddina am na sañ-sañu ñëw taxaw ne kenn wàccu ma woon parce que amul benn kayit bu koy firnde donc loolu tamit day indi day indi coow day indi coow waaw te bu ngeen di fàtte fàttaliku sax amoon na ay at ci gannaaw Euh, benn waykat bu ñu ràññee. Mhm. jotoon na fi am problème boobu noonu. Mhm. parce que ba mu moo jëkkër ji yaakaar naa bàyyiwoon teewoon nañu. Mhm. Euh, je pense soxna si amaat beneen borom kër. jëkkër ji ne ma musul fase. <laughs> kenn noo man dañ ma façon kenn non musul fase. donc su boobaa ba ñu demee yaakaar naa ba ñu demee ci tribunal est-ce que wuñ ko woon. parce que justement. divorce bi jotuñu ko woon prononcé waaw te loolu en fait nit ñi war nañ cee bàyyi xel parce que de te lu ko indi tamit c'est toujours un problème social mm-hmm. parce que dañuy jàpp ne euh, ñoom te loolu tam beneen problème la ci wàllu succession mm-hmm. nit ñi dañuy marié wu mm-hmm. mais duñ dem mairie déclarer seen seen seen mariage donc parce que ñoom ci seen conception bu ñu demee mairie forcément bu ñuy divorcé dañuy jaar tribunal. alors que c' est pas le cas da ngeen war a dem mairie pour que le tribunal euh, le mariage soit opposable mm-hmm. bu ngeen di divorcé tamit même bu ngeen demoo lañ mairie da ngeen war a dem tribunal parce que tribunal mooy. moo compétent pour prononcer les divorces mais yenn saa yi dañu wut seede rek hmm. gars yi toog ñu ne la may laal sa baat hmm. ñu constaté loolu ñu yem foofu noonu a continuer procédure hmm. loolu kaa la parce que des fois comme ni nga ko waxee nga si gis jabar jigéen bu ci am beneen jëkkër nga gis jëkkër ji taxaw ne ko man ma yow ma baat voilà la majeure partie du temps ci góor lay jóge parce que jigéen yi moom boo boo leen xesee ba ne fase naa la ñoom dañuy dem seen yoon voilà duñu ñëwaat naan <laughs> <laughs> mën na mën naa ne de parce que bu dee borom kër gi yoroon na xaw dëgër ci wàllum alal eh. léegi soxna si ñëwaat na man ci nono gi laa bokk de damay tey dañ <laughs> may jox sama wàll eh, waaw da <laughs> toujours ñu fàttali leen ne yéen a ngi seen émission sunu kaay tey ñuy waxtaane toujours li nga xamante ne mooy ndono eh, ñu gis na nag féewale na ay mbokk yu bëri indi na histoire yu bëri des fois sax police da ciy dugg ndax wala xam naa dinañ ci ñëw boobu benn question la mm-hmm. mais balaa loolu ñu dem seeti suñu page page publicitaire bi ñëwaat. Ila Qatar suñu Label TV fas yéene ànd ak yéen dem ba Qatar ànd ak yéen ak ñett programme yu bees tàkk yu ngeen dul gis feneen ku dul suñu Label TV. te des na suñu Label TV nat leen wan li gën a fës ci taarixu coupe du monde bi ngeen nar a gis joueurs yi qualifié équipe yi gën a fës ak itam dëkk ak stade yi nga xamante ne fa la jongante yi di amee te des na suñu Label TV nat leen wan li nga xamante ne moo gën a fës ci taarixu coupe du monde. te duñ ci wét ndaxte yéen nañ ci fas yéene àndal bu ngeen bëggee jokkoo ñun nag mun ngeen ñu woo si numéro bii di vingt 296 22 22. mbokk yi seetaan seen télévision suñu Label TV man la Alioune Guèye ma leen di jox dig daje seen émission bu bees tàq bu ñu dajj ci paquet muy jotaay ndaw ñi jotaay ndaw ñi nag yéen ndaw ñi yéen a ko moom na si pàcc yu am solo yu soxal réew mi jotaay ndaw yi mbokk yi fii lay xewee ci suñu Label TV ci xolu Sénégal saatu nabi sallallahu alayhi wa sallam seen waxtaanu diine bu juróom benn waxtu jotee ci suba ci sunu Label TV. mbokk yi seen émission ngoog di jilsatu nabi di jataayu sayduna muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam di leen ko bàyyiloo xel yéen ñëpp rawatina soppe yi waaye rawatina yéen ñi janoog ñun ci sunu Label TV nga xam moo nekk ci xolu tabarfakalla sénégalais yi. ñaan sunu boroom nekk ci xolu réew mi ñaan sunu boroom yàlla saxal ko ci réew mi ñaan nag yàlla yéen ñëpp ngeen bàyyi nu xel ci seen émission bii di na bi ñu koy ànd ak yéen fii ci sunu label TV nga xam ni mooy xolu Sénégal. ci xolu Sénégal comme ni ko oustaz taxa waxee ñu ngi koy nuyu au passage di ko seet bu baax a baax en tout cas di ñaan yàlla euh, yaram ji feex bu baax xam naa ne pël la nag xaw na ragal tuuti mais euh, séeréer yaa ngi koy ñaanal euh, toujours ñu fàttali leen ne yéen a ngi seen émission sunukaay kaay fii ci sunu Label TV ci xolu Sénégal ak xolu sénégalais yi ñuy waxtaan ak li nga xamante ne tey mooy ndono comme niñ ko waxee donn gi moom donn kaa ci biir cas yi ci biir Sénégal ku ko dégg dafa ma naan euh, est-ce que une semaine dina la doy est-ce doo ko xëcc ba un mois parce que li. léegi <laughs> <laughs> nee nañ cas yi dañoo bëri. <laughs> nee nañ non non daal cas yi ci nekk. dañoo bëri voilà donc ñuy dalal euh, maître Mori Diakhaté bi nga xamante ne aussi notaire la doon secrétaire général des chambres euh, des notaires du Sénégal ñu koy jëfal bu baax nag ci temps bi nga xam ne may nañu ko ci temps que euh, c'est pas évident euh, maître ñuy laajte aussi tey jii nii euh, su dee dafa am maanaam comme ni ko waxee na ko waxee ci olof sax waaye làqu bi walla. waay dawlu waay dawlu bi voilà ci njàngum olof gu métti laa benn rek wala waay làqu bi man benn la rek. <laughs> voilà donc tey jii nii mu am ci doomam yi ñoo xamante ne dañ ne ñii dañuy jaay ñii ne duñ jaay. Mhm. côté boobu. nuñ ko mën kiiwee saafara loolu mooy. principal problème wu succession. yi nga xam ne euh, mooy posé wu. Mhm. Euh, parce que d'ailleurs sax foofu dama fay attirer attention nit ñi parce que d'habitude nit ñi bu ñu ñëwee ci notaire rek c'est parce que dafa am kër gu mhm. wala mu am xaalis boo xam ne waaye dawlu bi bàyyi na ko banque wala am ñoo xam ne war na ko récupérer. Mhm. ci la ñuy ñëw ci notaire. Euh, wàllum soo dafa doy waar que foofu dafa am benn principe juridique boo xam ne dafa ne. nul n'est appelé à demeurer dans l'indivision mooy maanaam tey way dawal bu wàqu bi su fi bàyyiwee ab kër ab sancaan sancaan boobu nit ne ñii ne dañoo bëgg jaay ñi ne ñun jaayuñu donte cent personnes lañu bu ci kenn jógee ne man dama bëgg sama wàll il faut ñu lijjantil loolu moo tax ñu ne la nul ne appelé à demeurer dans leen l'indivision kon loolu noonu il faut ñu xool nagam dañuy xayma njëgu kër gi xool séddale ci ku ci nekk la nga waroon am ñaata la ñu fay ko wàllam. ñan ñoo koy fay wàllam. héritiers yi bëgg des. héritiers yi bëgg a des. waaw d'accord moom moom dañ koy xool. ñu fay su boobaa nag dañuy jënd te acte boobu noonu dafa war a nekk ci acte notaire mais loolu laataa muy am. il faut ñu régler succession ba pare. parce nit ki mënoo jaay loo moomul. Hmm. loolu mooy droit bi. mënoo jaay loo moomul te gis nañu fi ay cas yoo xam ne day am ñoo xam ne dañu taxaw ne temm temm ne da ngeen may fay. Hmm. te li nga xam ne moom la ñu war a lijjanti muy wàllum succession bi lijjanteeguñu ko. Hmm. kon loolu mooy préalable bi donc il faut ñu lijjanti succession bi. Hmm. kayit yi nga xam ne dañ ko war a uti ci muy jugement d'hérédité bi. Euh, bulletin de décès bi. Euh, jugement d'hérédité bu génnee ñaari weer ñu indi la lu ñuy wax. certificat non opposition ni appel. Mhm. ak évaluation wu kër ñu xam njëgu kër gi ñaata la. Mhm. ci yooyu lañuy ñuy jël tënk ko bind ab kayit dem na administration ne ah way dawle bi wàcc dem na ñii la fi bàyyi comme nono mhm. donc ñii ñoo moom. donc su boobaa nag ñooñu après ñooy toog waxtaanaat ñu xam ne kii wàllam nangam la ñu ne comme kenn nag da ngaa bëgg génn kaay yooyu ñuy jënd sa wàll. d'accord su boobaa moom ñu fay ko. Mhm. ñu mité nga xam ne état de droit bi nga xam ne moom lañ ñuy joxaat moom mhm. turam dootu ci nekk. mooy benn benn benn benn cas bi. Mhm. beneen cas bi mooy moom kenn ne man damay jënd nañu tas ñi ne ah, comme que loolu nag ñun pare nañ pour jaay la wala dañuy jaay kenn ne man damay jënd. su ñeneen ñëpp. dañ koy dañuy xayma ñeneen ñooñu seen wàllu ñaata la ñu jaay ko ki nga xam ne moom des moom kese mooy dese kër gi ñetteel bi mooy kenn ci ñoom amul moyen wala kenn ci ñoom bëggul su boobaa nag dañuy xool keneen ki nga xam ne moom moo bëgg kër gi ñu jaay ko ko xaalis bi nag ñu ñëw teg ko ci table bi ñu séddoo ku ci nekk lañ ci war a am nga am ko mhm. donc loolu mooy procédure bi léegi pour tënk rek amaa loolu yenn saa nga gis koo xam ne amaana danaan man jaayuma famille bi keneen laay jaay. Hmm. mu ne jaayu ci biir frère jaayuma ci biir sama ay frère damay jaay keneen. Hmm. kooku noonu laataa ngay mën a jaay keneen du force. d'accord parce que il faut nga waxtaan ceeg sa ay frère hmm. ba ñu purger li ñuy wax la droit de préemption mooy maanaam balaa ngay jaay keneen il faut que ñi nga xam ne ñoom ñoom ngànk noonu li ba pare ñu ne ñoom bëgguñu donc ñoom bu ñu nanguwul mënoo jaay keneen donc ñoom nan bu ñu nangoo nan su boobaa nan mën nañu ibbeeku. Mhm. ñu ne ah comme que kii xam la ñu xam nit ki. Mhm. ne kii nay dugg parce que dafa mel ni da ngay fekk si ab famille. Mhm. donc boo ñëwee ñu ne ah kon que ñun nangu nañu. pour kii dugg su boobaa njaay mi di mën a. alors alors maintenant quelle est la cohérence entre euh, notaire et que parce que parfois on voit les dossiers qui se traînent à la justice ba ñu jox leen convocation ñëw déggul déggul version euh, euh, en fait loolu buy am c'est une question bu am solo nga posé noonu. may fàttali ne notaire moom suy intervenir day fekk ñëpp déggoo hmm. parce que bu ñu déggoowul notaire mënoon am intervention parce que notaire moom lépp li nga xam ne da koy def rek mooy essayer d'apaiser les tensions sociales hmm. fexe ba ñu war a juboo ñu juboo hmm. déggoo ci kàddu xam na noo naka lay doxee moo tax toujours ñun dañ leen di wax fexe leen ba coow bañ am cim ndono parce que bu xasee ba am coow rek Sénégal fii de voilà du xasee ba am coow rek foofu notaire bi compétent wu donc il faut il faut ngeen dem tribunal waaw su boobaa nag tribunal mooy mooy mooy mooy tranché mhm. xool nag ne ah kii am na dëgg kii amul dëgg amaana sax yenn saay mhm. tribunal danaan bon comme que nii ngeen ngeen defee mënoo lañ déggoo mhm. léegi bàyyi leen yéen ñëpp dama leen di puus ma jël ki ngay wax mooy benn genre mandataire séquestre koo xam ne euh, bokkul ak dara succession bi bokkul ak dara ñi nga xam ne tamit ñoo bokk ci ndono li mm-hmm. parce que warul am benn lien de parenté wala benn alliance ak ñooñu noonu pour mu xaw a jeng tuuti. Mm-hmm. donc kooku nga xam ne tribunal la ngay jël tabb ko. Mm-hmm. donc kooku nag mooy toppatoo lu succession bi nag. xool lu ci war mu def ko bu dee dañu jaay moom mooy uti. client ñëw na ah juge bi gis naa koo xam ne da bëgg na juge bi xool nagam méngoo na ak li nga xam ne mooy njëgu kër yeeg yooyu ñu xool Euh, famille bi bu ñëpp kiiwee nag ñu ne donc nangu nañu ñu jaay yenn saa yu day am problème d'évaluation ñoom dañuy toog ne ah am na koo xam ne man damay jël sama expert mu évaluer kii ne non man d'accord ma ci expert bi su boobaa ñu ne ah comme que d'accord ñu nañu jël benn soit ñu jël benn koo xam ne bokkul ci famille ne ko tànnal ñu wa ilaa ñu ne xaaral ñu dem tribunal tribunal tànnal leen un expert pour mu ñëw xam njëgu kër gi xëy ma ñaata la mm-hmm. bu coow amee ci succession rek foofu notaire bi mënul dugg parce que notaire bi mënul jeng waaw ah, notaire mënul jeng parce que le notaire c'est un conseil impartial loolu tamit dafa jar a souligner bokkuñu comme avocat yi nga xam ne da ngay xaw a far benn parti pour défendre sa parti notaire c'est un conseil impartial mooy maanaam moom lu wolof di wax day tëddee ñaaxaanaay mhm. farul fii farul fee su fi nekkee daal yoon lay wax yoon lay teg waaw comme ça ku nekk xam ne lii moo la war mhm. yow fekkee ne ñu ne la ah sëñ bi lii da ngaa juum lii waru la maintenant nag fekkee nag dénk ngeen ci kàddu mhm. alhamdulilah notaire bi yegg li liggéey bu dee tënkuwoo la na ci kàddu su boobaa nag en fait mais parfois mais parfois il y a des il y a des problèmes yoo xam ne day egg tribunal euh, tribunal sax mënuñ trouver solution parce que euh, keroog ki bi yow tamit Ndiaga dina am solution. mais juste déggoo non ma rek waa ñu fi ñëwoon démb. nee na dem na justice envoyé nañu mu convocation. mooy loolu dara d'accord non cest à da ngay dem da dem devant la barre. mais après mooy loolu c'est la même chose c'est la même chose. non xam nga je ne pense pas que dinañ dem tribunal tudd am solution. da nga naan kay da naan solution bu la arrangé wul. parce que nag bu ba nit demee tribunal nag. soit da ngay gagné wala nga perte. carte. ñaar yooyu fa ne. Mm-hmm. d'accord léegi euh, cas bi muy wax mooy Mame Cheikh bi wax ne démb moo fi ñëw exposé kaawam. Mm-hmm. moom euh, son problème. c'est que ba léegi euh, ndono gi mënaguñ ko def te ça vingt deux ans bi nga xamante ne que euh, génn na àddina ñaari sëram ci ay waxam waxu maam Cheikh lay relaté. Mm-hmm. d'accord donc ñaari sëram ñoo nekk ci biir kër gi ak ay jëkkëram ak mm-hmm. seen ay doom. Mm-hmm. moom ak beneen sëram dañoo obligé génn kër gi ndax ay ay ay problème léegi nag moom euh, son cri de cœur c'est que ñu mën a miiras papam. mu mën a tàlli. donc moom comme ni mu wax démb comme ni mu ko waxee dafa expliqué ne entamé na. ay procédures yu bëri. Mhm. mais moom dafa gis ne saa bu demee ba ci biir rek dafa mel ni dafa am ku ciy teg loxo ba nga xam ne procédure bi du yegg fu mu war a yegg ba ñu mën a tranché mhm. moom c'est ça son cri de cœur. Mhm. moom il cherche une solution à son problème. moom loolooy problème waaw xam nga xam nga loolu en fait mooy li ma doon expliquer sànq. Euh, benn pàcc famille bi amuñu sañ-sañ. ak ki moo alalu ku way ku dawlu kii des autres loolu yoon mayewu ko mm-hmm. euh, te mooy tamit principe bi ma wax sànq également nul n'est appelé à demeurer dans l'indivision mm-hmm. donc kooku xaw ma nagam am na jugement d'hérédité parce que loolu dañ ko war a lijjanti bon si papier yi mu indi woon am na ko am na jugement d'hérédité mm-hmm. am na certificat ni appel waaw donc léegi ñaara am soit dañuy tënku ci kàddu ñu toog waxtaan parce que nag comme li ñuy wax ne toutes les guerres ah ci ci table lay mucc. Mhm. et man li ma ko doon lu ma ko doon euh, suggérer rek. mooy bu dee am nañu mag ci famille bi parce que xam nga lu wax naan mag jar naa bàyyi ci réew. Mhm. bu nekk war na am koo xam ne moom mooy patriarche bi koo xam ne dina dinañ ko may nopp. Mhm. mu waxtaan ak ñooñu. waaw bu dee maintenant nag ñooñu jéemuñu xool pour lijjanti loolu. ah su boobaa nag tribunal la fi nekk. Mm-hmm. te tribunal boobu noonu peut-être procédure mën na yéex mais na xool un avocat boo xam ne. Mm-hmm. dina ko mën a accompagner parce que am na loo xam ne nag tribunal dafa am ay lu ñuy wax ay guerre de procédure. boo xamul procédure. Mm-hmm. c'est très difficile nga dem tribunal ba pare euh, gagner. donc il faut mu mu mu ut un avocat boo xam ne moom moo koy accompagner ci loolu. et sur la base de ça je pense que le problème devrait pouvoir être réglé. Mhm. xam naa moom mu ñuy seetaan parce que ne woon na tey dina toog jàkkaarloo ak télé bi pour déglu solution yi nga xamante ne euh, ça s'offre à à lui parce que ça lui ça lui tient à euh, beneen question bi euh, mooy que ni tey jii nii est-ce que benn famille def benn accident mara day taali ou le papa la maman les enfants. ñëpp sont partis voilà. qui mhm. qui qui hérite. waaw loolu yoon dafa euh, tënk na ko parce que yenn saa yi gis kenn ne man bàyyiwuma fi kenn. Mhm. Euh, fii en fait ku wàcc rek am na ku lay doon. Mm. waaw fekkee papa jeeg yaay jeeg ñëpp dañuy périr. Mm-hmm. peut-être ñoom seen ay papa ngi fi seen waajur. Mm-hmm. sunu ay waajur seen sœur ngi fi wala seen frère. maanaam daal succession bi dafa limité wu jusqu'au sixième degré. maanaam. sixième degré mooy maanaam dinañu xool papa xool yaay di remonter daal ba sixième degré de parenté d'accord voilà mm-hmm. bu ñu gisul nag sixième degré de parenté boobu kenn newu fa. Mm-hmm. su boobaa nag am na koo xam ne nan moo fa nekk yooyu yooyu yëpp muy nguur. <laughs> muy nguur gi. <laughs> mu jël yëpp yomb na. <laughs> donc moom succession moom amul. c' est très rare. nga remonté ba foofu te doo gis kenn. doo gis d' accord d' accord mais nguur gi daal moom nay nay nay kii rek nay nekk dernière position. waaw moom mooy nekk dernière position. moom bu mu jël. mu jël loolu yomb na nag loolu moom yomb. yomb mm. léegi nag euh, dañuy delluwaat euh, xool euh, suñu page publicitaire le temps di jëlu nga tàggoo ñu dalal ki nga xamante ne mooy ah la oreille waaw mu ñëw moom it ak ay question am ay question mm-hmm. <laughs> ku sadit du bal <laughs> da ngay tàggoo wala da ngay jóg dem <laughs> nga naan du baal kenn rek dina baal. <laughs> merci beaucoup di la bu baax baax mm-hmm. dig daje comme li ñu ko faral def rek euh, chaque jour. Mm-hmm. suba incha allah même heure. Mm-hmm. même chaîne. la télé la télé au cœur des Sénégalais suñu label TV di leen jaajëfal bu baax a baax suñu fidèle téléspectateur. jërëjëf di jéego waaw kay gars yi nga jàngi olof ñu dellu si waat ñu dellu xoolaat suñu page publicitaire dellu si waat si plateau bi. Ila Qatar suñu Label TV fas yéene ànd ak yéen dem ba Qatar ànd ak yéen ak ñett programme yu bees tàkk yu ngeen dul gis feneen ku dul suñu Label TV te des na suñu Label TV nat leen won li gën a fës ci taarixu coupe du monde bi ngeen nar a gis joueurs yi qualifié équipe yu gën a fës ak itam dëkk ak stade yi nga xamante ni fa la jongante di amee te des na suñu Label TV nat leen won li nga xamante ni moo gën a fës ci taarixu coupe du monde te diñ ci wét ndaxte yéen lañ ci fas yéene àndal bu ngeen bëggee jokkoo ñun nag mun ngeen ñu woo si numéro bii di 78 296 22 22. jilsaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam seen waxtaanu diine bu juróom benn waxtu jotee ci suba ci sunu Label TV. mbokk yi seen émission ngoog di jilsatu nabi di jataayu sayduna muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam di leen ko bàyyiloo xel yéen ñëpp rawatina soppe yi. waaye rawatina yéen ñi janoog ñun ci sunu Label TV nga xam moo nekk ci xolu tabarfakalla sénégalais yi ñaan sunu boroom nekk ci xolu réew mi ñaan sunu boroom yàlla saxal ko ci réew mi ñaan nag yàlla yéen ñëpp ngeen bàyyi nu xel ci seen émission bii di Jël Seetu Nabi ñu koy ànd ak yéen fii ci sunu Label TV nga xam ni mooy xolu senegal voilà ñu ngi waat euh, suñu plateau euh, sunu kaay yi fii ci sunu Label TV ñu fàttali leen ñu ngi si euh, canal 27 bu TNT 34 bu TV d'Orange et nous sommes en live sur Facebook mën ngeen retrouver aussi toutes nos émissions sur YouTube muy la matinale sunu kaay yi ak li nga xamante ne mooy ji ji la naka dimbali ma jàppale ma si. di saatana bi waaw doo ko wax ci kaw ñu ci dégg ko. di <laughs> waxtaan ak askan bi ak euh, aussi jotaayu ndaw yi yeneen programme ak Seydina euh, Alioune voilà donc yeneen programme aussi ñu ngi leen di xaar en tout yu bees tax yu nar a dajji seen euh, seen paquet ci li nga xamante ne mooy sunu label TV sunu buzz moom jox mu ngi leen di jox dig daje à 17h30 boobu moom da ngeen di fecc ba ñaq la oreille ñu bàyyi la nga nuyoo Zafatou maa ngi lay ziar bu baax dina jox sa wàccuwaay di ziar suñu gan gi suñu notaire bi mm-hmm. di ñaan yàlla suñu borom mu may ñu ñu yendu ci jàmm ak salaam di ziar kër gi ak ñi nga xam suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan. Mm-hmm. à travers suñu label TV vingt 27 ci TNT bi. TV de 37 comme ni ñu koy waxee. YouTube euh, sunu Label TV ak euh, Label Média application bi. Mm-hmm. ñu ngi ñuy topp saa su ndax ñu ci oto yi tamit euh, ñu ñuy seetaan baax moo tax foo génn ñu dab la donc ma delloo la sa antenne ndànk <laughs> en attendant ñu ko saat ba ci kan <laughs> d' accord amul benn problème. léegi maître beneen question bi nga xamante ne aussi gars yi laaj laajte nañ ko mooy dañu remarqué des fois dans les familles surtout bu fekkante ne waaye làkk bi parent bu góor bi dafa teel a décédé bàyyi jaboot bu ndaw maanaam comme nu ñuy wax ay tout tànk dañu tàmm di remarquer ne seen alal dañ koy dilapider. et en mm-hmm. majeure partie c' est du côté de des parents de de de, de du mari du père. waaw ndax saay loolu tamit. Euh, <laughs> problème la xam naa cas yooyu moom <laughs> bëri na fi. <laughs> mais en fait xam nga yoon dafa organiser lépp. Mm-hmm. yoon organiser lépp. Mm-hmm. Euh, tey fekkee waajur bu góor bi dafa làqu. d' ki nga xam ne xale la daam am kuñ ngay dénk de kooku ñu koy dénk euh, tribunal moo koy moo koy tapp moom lay wax kii dénk nañ ko diw dénk nañ ko diw su boobaa dafay wut lu ñuy wax un certificat d'administration légale mhm. donc loolu au niveau du tribunal d'instance euh, euh, hors classe lañ koy defee loolu ki nga xam ne moo lay dénk xale bi ah d'accord moo koy wut. yenn saa yi peut-être mm-hmm. yaay ji lay nekk. Mm-hmm. Euh, yenn saa ñu dénk maam ji yenn saa ñu dénk bàjjen ji. Mm-hmm. mais daal juge bi dina xool ki nga xam ne moo yelloo woo toppatoo xale bi. donc kooku nga xam ne dañ ko dénk. en principe. il ne peut faire que des actes d'administration. mooy maanaam amul sañ-sañu jaay alalu xale bi. waaw bu dee nag dañu dem ba ñu xam ne fii jaay war na. Euh, su boobaa day dellu tribunal ne juge bi ah man alal bii la fi xale bi yor wala am na wàll ci nangam léegi lii de dañ ko war a jaay pour xool ci laka lañ koy yenn pour njàngam wala entretien wu xale bi wala genre yooyu dañ ko war a loolu la war a kii juge bi su boobaa moom mooy autoriser vente boobu noonu. juge bi juge bi mooy autoriser vente bi. Mhm. donc en principe juge bi war na sax après aller plus loin. xool ndegam li nga xam ne moom la ñu waxoon ne lool moo waraloon ñu jaay loolu topp ko xool ndegam matele na bu doon maintenant yeneen dëkk yi comme dëkk tubaab yi ñoom xaalis boobu nga xam ne xale bi moo ko am parfois dañ koy jël déposer ko au à la caisse de dépôt donc fii am nañu caisse de dépôt et de boo xam ne alalu xale bi mën nañ ko dugal ci compte man gis naa koo xam ne moom ba mu jaayee alalu xale bi du ko jël yóbbu ko ci benn compte bloqué ba xale bi màgg mu teg ko ci loxo. loolu da ngay fekk nga jub da fekk nga doon ko xam ne danga leen mais gis nañ fii ay cas yoo xamante ne euh, maanaam xale yi euh, mën nañ ne doonuñu dara ci seen pap parce que seen alalu pap di de nañ ko parce que peut-être yaay ji aussi xamul woon euh, quelle est la à suivre. Mhm. donc mbokk jëkkër yi ñëw nañ. akimoon nañu alalu seen rakk wala alalu seen mag yaay ji. xamul nu muy def. parce que cas yooyu moom moom gis xam nga loolu déjà sax dafa mënul nekk. Mhm. parce que ku wàcc liggéey. Mhm. bàyyi fi jabar. Mhm. bàyyi fi doom. wa ilaa bu fekkee waajuram yu bu góor ak bu jigéen ñu ngi dund. ñoo ñooy doon. ñoo ñooy doon. umpaañ. bokkuñu ci. donc loolu dafa jara dafa jara signaler parce que yenn saa effectivement dañuy dégg kii ne ah man de ay. sama ay jarbaat wala ay samay kii ñoom ñoo tëdd ci alal bi lijjanti wuñ succession yi mais ñoo ñooñu yelloowuñu ci ndono googu noonu. Mhm. moo waral jugement d'hérédité boobu daf ci am solo. bu ñu demee jugement boobu mooy tabb na diw ak diw ak diw ñoom ñooy doon. bu ñu matelee loolu comme lu ma waxee woon sànq ñaari weer ñu am certificat non opposition ni appel. Mhm. maintenant su bu ñëwee ci ñi nga xam ne par exemple ñun notaire. dinañ lañ wax fu ñu war a mën a jaar ba lijjanti loolu loolu daf ci am solo mais ñi nga xam ne dañoo nekk autour ñu amuñu sañ-sañ ci ci ci ndono googu noonu donc xale boobu noonu alalam tamit buñ koy jaay mënoo tëb rek jaay alal bi noonu bu dee suuf la moom en tout cas mm-hmm. parce que xam nga nag bien mobilier mm-hmm. comme casu vert bi tey buñ ko jëlee jaay ko foofu juge bi mën a ko contrôler <laughs> notaire bi mën a ko contrôler mais bu dee dafa jëm ci loo xam ne mhm. procédure yi dañ ko encadrer mhm. comme lu jëm ci wàllum suuf mhm. alalu xale bi mënoo ko jaayee noonu donc loolu noonu ala kulli xaal foog nga jaar ci yoon ci lu mu tënk mooy maanaam ñëw ci notaire notaire bi def wàllam bu gisee ne am na ab xale boo xam ne mineur la boo xam ne dafa nekk si ndono gi ñu war a jaay wàllam mhm. foofu impérativement il faut ñu dem uti autorisation au juge de tutelle mhm. c'est important mhm. ok parce que euh, maa ngi rafetlu li ngay euh, li ngay partagé ak suñu mbokk téléspectateurs yi parce que dafa am yoo xam ne il ñoo xam ko déjà li nga expliqué sànq affaire notaire haute état ko fi teg dafa lu mu war a toogee ñu ci bëri xamuñu ko mais dafa am ñoo xamante ne man dafa dafa am ku may wax ni ma Euh, bu fekkente ne waaye dawlo bi dafa génn àdduna bàyyi fi këram à partir de là dañu war di fay location ba keroog ñuy ñuy miraas est-ce que loolu mën se vrai. waaw loolu euh, c'est c'est mën na nekk. mën na nekk ñu si bëri sax pour problème boobu la ñuy am dañuy xool ne par exemple ñun kër gi ah diw moo ci dëkkoon. donc comme que moo ci dëkkoon am na ci wàllam bu ñu xaymaa donc ñun ñi nga xam ne dëkkuñu si kër gi dañuy fay loyer waaw donc loolu euh, famille bi buñ ci tënkoo donc loolu dafa mën na nekk donc ce qui fekk que am na ñoo xam ne dañ naan boo comme que suñu xaymaa ba demee bay jaay ñu xayma ne par exemple dëkk nga juróomi at juróomi at par exemple waroon nga fay cinquante mille francs par weer. Mhm. ñu xayma cinquante mille francs ba mu mat nangam. Mhm. dañ nangam bu ñu jaayee ñu ne loolu noonu koy da nga koy da fay xam ne ñoom ñoo ko moom mooy ñeneen ñeneen héritiers lu mën nekk la. ok parce ñu bëri xamuñu loolu dañ ko war a génn ci sa wàll. foog naa ñu bëri xamuñu loolu. moo tax question bi dañ ma ko wax pour ma jàllale ko. effectivement si am na ñoo xam ne jamono jii dañu am problème boobu noonu dañ leen wax pour ñu fay location. Hmm. donte doomu euh, way dawlo bi lañu hmm. mais dañu leen wax pour ñu dañu war a fay location. Hmm. parce que seen papa dafa génn àdduna léegi alalu mbooloo la. donc comme miraase guñu donc ñoom dañoo war a fay. bu ñu miraase ba pare dañu war a génn kenn ku nekk temps de nga fi duré. bu fekkee da nga ñëw tabax ci sa kaw papa kër papa. aussi tamit tabax boobu noonu yow dañu lay fay li nga xam ne yaa ko fi tabaxoon. voilà mais li ci des dañ la koy delloo. loolu dafa am solo ah, voilà. yooyu noonu loolu tamit moo tax hmm. yenn saa yi dañu am cas yooyu. Hmm. effectivement c'est c'est bien que nga signale cas boobu. dafa ñoo xam ne ñoom. seen alalu waajur. Mm. ci la ñu tabax. def nañ fa benn appartement. Mm-hmm. Mm-hmm. mais loolu li may attirer attention rek bu ko def sans pour autant nga déggoog famille bi. Mm-hmm. Mm. daf ci am solo. bu fekkante ne euh, sa waajur dafa génn àddina. déedéet laata muy génn àddina. non laata muy génn àddina day wax ak ay parents ba ñu d'accord ne ko tabaxal fii moo gën ngay dem di wuti feneen. te yooyu maanaam tey jii nii sa euh, man mu bëgg a tabax. damay dem ki may laaj permission sama papa lay doon wala il faut ma am aussi avalu. par exemple sa papa parce que moo moom. moom moom kese parce que moo la war a jox autorisation moom moom autorisé parce que moom moom yëfam. d'accord donc bu dee la autorisé nag. lu am solo mais yenn saa mën nga ci informer saa yi frère ak sœur. ñu xam ne ah. moom de autorisé naa ko nangam def na ci nangam. Mm-hmm. d'habitude il faut mu am tamit loo xam ne mooy mën a wane. de sorte que ëllëg. Mm-hmm. bu fu woy dawli bu nekkee ñu waral a lijjanti succession boobu ñu xam ne kii lii moo ko fi defoon. Mhm. xayma ñaata la bu dee dañuy jaay wàllam ñoom ñu delloo ko ko. Mhm. après c'est loolu ci nekk. aussi aussi notaire yi parfois dañuy parce que am na ñoo xamante ne dañuy njublang ci famille. Mhm. dañuy njublang bu ñu bëggee tey jii benn affaire bu gaaw dañuy dem uti seen benn comme li ñuy wax faux huissier am na. faux notaire am na faux faux euh, nu mu tuddati avocat am na yaa ngi dégg dañuy dem lijjanti seen benn faux faux notaire euh, da nga signalé loo xamante ne peut-être ñu a am. Mhm. comprendre nga mhm. loolu a da ah koy <laughs> euh, ñun pour ñu bañ a juum bañ a engagé ñu ne kii diwul nangam nangam la rek ñu am confiance ci moom yan critère la war a war a war a war a am pour ñu mën ko xam. alors parce que ñu bëri ñi nga am problème yooyu. pour benn moom bu xam ndegam diw notaire la. Hmm. wala notaire yomb na trop. Hmm. jafewut da ngay woote chambre des d'accord boo wootee chambre notaire mhm. laaj leen ne diw de mhm. dañ ma ko présenté comme notaire dina la wax si waaw ak déet notaire la. Ah, kon ñëpp ñëpp foofu la ñu tënku. foofu ñu ñëpp foofu la ñu tënku d'accord. donc am na benn répertoire boo xam ne dafa am mhm. tous les notaires du Sénégal. sont là et yàlla def na xamante ne ñun ñëpp suñu biir. Mhm. ñun boo ne diw notaire la. Mhm. dinañ la mën a wax ndagam notaire la wala notaire. Mhm. loolu moom alhamdulilah. ci boor boobu moom la chambre est bien organisée en ce sens donc fekkee na dañ ne diw notaire la moom. bul am looy laam-laamee. ñëw rek wala demal ci notaire bu la neex. yaa xam ba héritier bi yaa demal ci notaire bu la neex. nga ne ko man de dama am noonu expliqué sa cas ne ah diw dañ ne ma notaire la kooku dina la wax nagam notaire la am déet. wala d'accord parce que Sénégal léegi da gis kenn ku bëgg rek def affaire la lijjanti yooyu noonu rek. loolu usurpation de moom alhamdulilah la chambre ne nag bu desee amee surtout nga gis ñoo xamante ne li ñuy li leen di gën a intéressé mooy kayitu kër gi. lu tax loolu. <laughs> ah non dañuy dem jël kayitu kër denc ko. moo tax kër yu parce que suufay alal. <laughs> xam nga léegi dañoo dem ba xam ne mm-hmm. euh, suuf moom déjà boo ko amee rek mm-hmm. daanaka sant yàlla mm-hmm. donc euh, ce gi fait que euh, dafa bëri njariñ waaw dafa bëri njariñ donc ce qui fait tey bu diw wàccee liggéey rek am na ci bëri ñoo xam ne ñoom suuf bi la ñuy lijjanti te lu ñuy li tax ñuy lijjanti suuf si ñenn ñi peut-être dañ koy jéem sàmm ne titre foncier bi ni il ñu garder ko parce que effectivement titre foncier boobu noonu. boo ko boo ko réeralee beneen procédure la boo xam ne moo koy moom la ñuy def. Euh, am na ñoo xam ne nag ñoom lu ñu lor ne mooy yi comme que sama papa bàyyi woon na fi bëggoon naa dem États-Unis de man bëggoon naa dem France kii na bëggoon naa takk jabar kii na bëggoon naa réaliser projet bi lépp ci benn sa kër papa waaw nañu jaay suuf si Sénégal <laughs> waaw nañu jaay su boobaa nag bu ñu jaayee suuf si mhm. euh, ñu seddoo bu ñu seddoo nag ku ci nekk nag yaa xam foo jëm ne lan cay def waaw lan cay def mhm. mais c'est pas que da nga teew suuf si rek kayit boobu rek ka mhm. am nga sécurité wala moom nga déedéet <clears throat> kayit boobu dafa laaj ñu dem ci notaire ñu matale toutes les procédures yi nga xam ne dañ ko waral ba ñu jël ñi nga xam ne ñoom ñoo fi des ñu jël maintenant def ci euh, def seen tur ci ci kayit gi su boobaa nag bu ñuy jaay comme la ñu wax rek yow mënoo jékki-jékki rek ne man damay jaay ah, dem ci sa benn waaye mu defal la benn kayit sous seing privé ngeen signé mu signé ñu ne jaay nañu kër gi mm-hmm. mënul nekk mm-hmm. donc su boobaa da ngeen ñëwaat ci notaire ñu tënkuwaat ne kii la ñuy jaay kii ñooy jënd notaire bi xool ndegam ñi war a dund ñëpp wala ñi nga xam ne ñoom ñooy doon na ñëpp ñu ngi fii mm-hmm. est-ce que ñu ngi dund est-ce que déggoo nañu ci kàddu notaire bi day day sàkk day day leeral loolu yëpp. Mm-hmm. ba nga xam ne moom ba bu tënkee kii bi mm-hmm. képp ki nga xam ne da nga bokk ci ndono gi da nga ñëw teew si. yaa xam yaa ngi Koulikoro yaa xam yaa ngi Chine yaa nga xam mais ñoom ñëpp dinañ lañ contacter ba am ci lu leer ci ñi nga xam ne déggoon nañ ci kaddu par rapport ak njaay mi. Mhm. su boobaa nag ñi nga xam ne dañ leen procuration ñu signé ko devant notaire fi nga xam ne fa la nekk. wala au niveau de l' ambassade wala du consulat. Mhm. loolu yëpp dañ koy teg mais kayit yi daal laataa ñuy dem. ci wàllum signature ak fay ak jëndante moom su boobaa notaire bi dina saytu loolu. kon lépp ci yéen da ngeen ko teg ci kaw këyit. kaw këyit ci preuve ci signature. preuve ak signature am na solo mais lan mooy tax tey euh, ñu gis benn kër euh, ñu expulsé ñi ciy dëkk yëpp donte ne ñoom sa sont des héritiers tëj kër gi. mooy coow. Mhm. parfois noonu lay demee coow li dafay bëri moo tax ma ne la tension sociale. Mhm. xam nga tension sociale bu amee nit ñi war a nekk na reyante si seen biir. ndax su boobaa nag juge bi day jël mesure. ah d'accord pour na jël mesure sécuritaire waaw ñu aar la. waaw ñu aar maintenant ba lijjanti wàllum kër gi maintenant su boobaa nag ñu xool fan la war a féete. Mm-hmm. nag reyante bi jaaxal na ma trop ci <laughs> ne sa papa. mais man man man suñu suñu la dégloo xam naa liñ te liñ dese ci temps euh, bëriwul. comme mm-hmm. ni ko waxee woon rek une heure de temps moom. <laughs> Ah, <laughs> ah, day ndaw pour ñu ah, mën ci lijjanti li lañ ci war a lijjanti yëpp mais xam naa dinañ ñëwaat euh, ci yeneen euh, ay bés mooy maanaam euh, tey jii nii li nga expliqué fii c'est telement fluide mhm. tellement clair mhm. mais lan moo waral tey kon problème mu ndono di am ba léegi fii nii Sénégal di doon comme ni nga ko waxee tension sociale mhm. ba nga xam ne nit ñi mënuñu ñëw nit génn àddina ñu miiras ko ci jàmm ak salaam donte ne nag am na ay exception waaw en fait loolu lu koy indi benn ñàkk xam ñàkk xam daf ci am solo parce que xam nga loi moom boo xamul nu mu tënkoo te jege woon ñi ko xam tamit euh, li ngay juumloo da day day yomb beneen bi am na ñoo xam ne ñoom euh, lenn rek lañ gis ci ndono gi seen bëgg-bëgg d'accord li leen arrangé li leen arrangé mhm. sama papa génn na àdduna sama yaay génn na àdduna bàyyi na fi li nañ jaay ñu seddoo mhm. donc loolu loolu mooy loolu mhm. Euh, ñeneen ñi tamit parfois dafay am ay éléments externes ñoo xam ne bokkuñu ci famille bi mais ñoom tamit dañuy wër am fexe ba mu am ay xaajaloo ci diggante famille bi euh, kii naan la noo defal lii kii dafa dafa bëgg nga def lii kii ne yooyu yëpp dafay am yan yenn saa itam mën a nekk maanaam jaxasekat yi rek jaxasekat yi seytaane yi voilà yi nga xam ne ñooy ruube voilà famille yi famille yi mu ngi noonu am na mhm. ñoo xam ne nag c'est en fonction mhm. Euh, taayu famille bi mm. famille polygame lañu. Mm. donc kii ne man a ah, sama wàll lii la kii sama kii moo mën a ëppale mu jur coow. Mm-hmm. yenn saay sax mm-hmm. mën na nekk même sur le choix mm-hmm. de la succession ñi ne ñun dañoo bëgg a tollale. Mm. ñii ne déedéet succession droit musulman. Euh, la ñuy def góor ñaar jigéen benn ñii ne noonu loolu du fi amee. ñun ñëppay tolloo donc yooyu yëpp dafa bëri. bëri na ay cas daal du loo xam ne dañ mën nañ a ciblé ne lii la mais dafa bëri ay cas da nga koy topp cas par cas ku ci nekk ak li nga xam ne mooy tax nga yëngu ci succession boobu mhm. noonu kon cas yi cas yi maanaam cas yi nekk ci biir ndono gi moo tax euh, voilà mu mu muy am problème muy am problème mm. du ngeen bàyyi cas ci biir ndono gi te di maanaam miiraas seen waajur yi ñu mën a tàlli euh, nekk si jàmm parce que nee nañ quand même ku ñu miiraasul moom nekkoo si jàmm ah euh, voilà tàlliwoo te ay 22 ans 20 ans ñi naan la samba Pape ba mu génnee àddina mat na euh, vingt cinq ans nii ne loolu bëri na quand même Maître Diakhaté est-ce que amee lu ñu àq tamit ki nga xamante ne mooy euh, ki génn àddina mën na ne parce loolu yëpp parce que ku ci nekk moom booy génn àdduna moom ñaanoo yàlla sa ginnaaw mel noonu mm-hmm. parce waajur bu nekk ñaan nga yàlla bés boo fi nekkatulee mm-hmm. sa njaboot gën a rafirmer gën a sundewu mais mm-hmm. loolu duñ ko sàkk moo tax nag dañuy woo ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu rek ñu faral di jege ci notaire yi ñu wax leen fan lañ mën a jaar ba loolu du mën a du am mais buy am i tamit mu doo xam ne lu ñu mën a maîtriser la daf ciy am solo wala tamit est du dem ku nekk du dem liggéeyal boppam parents yi bu ñu liggéeyee ba pare balaa ñuy génn ñu noosee histoire du am. ñëpp loolu tamit kaa la. am na dëkk yoo xam ne mën na nekk choix la choix la bu ko defee sa ginnaaw problème du am. sa parent bu la lebalee teranga war nga ko mën a fay. Mm. ci ko koy fayee mooy nga taxawu ko taxaw bu rafet. Mm. ñaanal ko mais am na ñoo xamante ne xamuñu fan la si fan lañ denc seen ay waajur. ba pare di ñu ngi xëccoo seen alalu ay waajur loolu dafa mel loo dafa nekk loo xam ne lu ñaaw la man dama ko ñaawlu trop mm-hmm. parce nag ki dem ñafe ji ba indi li alalam teg ba yow aussi tamit ah. Mhm. nga fay ko bor bi balaa muy génn àdduna. Mhm. comprendre nga mm-hmm. te bu fi nekkatulee. nga taxawu ko taxaw bu rafet. def mm-hmm. ci alalam loo xamante ne lu war la. darta mm-hmm. xëccoo parce que alalu àdduna la fay jeex. amaana mën nga ko mën nga xëccoo ndonale ba mu tegu sa loxo doo ko fekkee. est-ce que doo ko doo doo du ngeen di ngeen rawante. yooyu dafa mat a bàyyi xel donc nag Sénégal ñun problème boobu dañ ko am te cas bi dafa bëri. li da nga ko war a yaatal non bii damay foog foog naa damay déglu téléspectateur yi ma jël un mois boo xam ne. ndono non non defal loolu parce que instant bi li ñu ci am dafa bari bëri trop non bëri na surtout témoignage ak questions yi ñu nit yi di di yónnee comme notaire bi ñëw na tey voilà indi lu bees tàq loo xamante ne peut être ñu bëri xamuñu ko woon léegi xam nañ ko ah, grâce à sunu Label TV mm-hmm. ah gën a jàpp ci combat bi parce que mm-hmm. tamit nag yi yi yi leen di manqué ñoo koy indi donc notaire bi wax na fi loo xamante ne ñëpp jël jàngat mm-hmm. képp ku ci amati problème yu di mel demal nga seeti ji notaire bu fekkee dañ indi notaire bu dalu sa xel Sénégal fii dafa bëri ñu jubali. lim leen di wax lu leer la. kiiwul quoi méttiwul méttiwul voilà méttiwul sérieusement donc euh, maître Diakhaté waxtaan bi neex na mais temps bi def ñu tënk comme ni ma la waxoon une heure temps doyul parce que y a beaucoup mais xam naa euh, ci yeneen émission di ñu defaat le plaisir rek di ñëwaat sur le plateau ñu def ci waxtaan gën a yee sénégalais yi léegi nag ñu bàyyi la nga tàggu ñu doon ah, seetaan incha allah bon di santaat ñëpp di di nuyuwaat ñëpp rek mhm. Euh, di fàttali ñëpp rek euh, na ñi nga xam ne euh, dañu foog ne notaire dafa inaccessible. Mhm. le notaire n'est pas du tout inaccessible. dégg naa da ngeen cher nag. waaw loolu lu wax la <laughs> mais loolu en fait notaire cherul chaque jour ma rappelé ko ci plateau yi may dem nee na notaire moo fi def acte boo xam ne dix mille francs la. Mhm. ci wàllum succession. Mhm. et ça je vais en profiter. succession mooy dossier yi gën compliqué yu ñu am. notaire su ma la ñu waxee ñaari la ci am. pour l'acte de notoriété pour mutation vingt mille francs la. donc loolu lu jar a xam la <laughs> pour dire c' est des dossiers yoo xam ne nit ñi daal ah yii buñ jaaree ci notaire mm-hmm. non non mm-hmm. c' est yoo xam ne parce que foofu aspect social bi mm-hmm. daf ñu yiteel ñun parce que loolu nguur a ñu fi teg donc am na yoo xam ne peut être ñàkk xam moo waral yenn yi mais les notaires ne sont pas du tout inaccessibles buntu notaire boo fëgg dinañ la recevoir wax la naka nga mën a doxalee euh, ci sa succession wala ci leneen yi tamit ah, parce que du succession kese suñu domaine yaatu na waaw mais nag su ngeen ñemewul notaire daanaka lu bëri daal dafay day xaw a yéeme daal mm-hmm. Mm-hmm. donc di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di xamale nit ñi rek lañ fàtte ne chambre des notaires maintenant dafa nekk dans une benn benn esprit d'ouverture mm-hmm. pour que ku ci nekk mën a xam ci lan la tënku ci lan mooy liggéeyam xam également lan mooy jafe-jafe askan bi mën ci apporter ay solution te loolu tam ñu ngi ñaax tamit yéen ngeen jàppale ñu ci boor boobu parce que euh, dinañ ko soxla noor pour nit ñi mën a xam ne daal on comme yéen ak ñun <laughs> di am problème comme yéen ak ñun problème yi ngeen di am mm-hmm. ci wàllum succession ñun ñëpp dañ ko am ci suñuy famille donc c'est important que ñu partager pour que au moins ñu trouver des solutions yoo xam ne au moins euh, askan bi dina ci gis bopp d'accord santaat ñëpp nag di gërëmaan ñëpp mm-hmm. di la bu baax maître Diakhaté la oreille euh, dama lay tàggul parce que suñu <laughs> <laughs> temps bi tënk nañu uh-huh. ñu lay jaajëfal bu baax a baax di remercier nag euh, gymnastique a notaire bu jóg ñëw toog ci kanamu tele dafa fekk mu am autorisation ku la autorisé. ah sama présidente Aïda Diawara. voilà présidente am comme nuyu nag passage nuyu également les membres du bureau du comité directeur et l'ensemble des confrères des conseillers et confrères. Ah, parce que gymnastique la woon pour ñu am en tout cas notaire ah, parce que ñëpp dañu doon wax ne il faut ñu am autorisation. pour ñu ñëw mun a toog ci plateau waxtaanee ko ñu leen di jaajëfal bu baax a baax waa chambre donc euh, des notaires euh, du Sénégal di remercier sunu téléspectateurs ci seen fidélité di leen di jaajëfal di leen di jox nag dig daje toujours demain dal fi dalal tamit euh, suñu juriste madame Aminata Samb moom it mu dugg ci li nga xamante ne rek mooy kaat ndono comme ni ñu leen ko waxee tout la semaine dañuy wax ci li nga xamante ne mooy ndono gi di lëmbee biir Sénégal doon fi kaa jaajëf ba suba